kon nañ ko rey mbir mi daal di jeex gis ngeen doomi aadama yi lii mooy seen méthode mooy dañuy jéem seeni pexe di jéem di jéem di jéem ba dernier pexe boo xamante ne dara sottiwut ñu ne nañ ko rey ibnu abbas moo ñu nettali nee na lamma lamma jtamau li zalika wa taaddu an yadxulu fi daari nadwa ba ñu demee ba jël décision boobu d'accord ne dañ koo war a rey dañoo dëppoo ñoom ñëpp ne nañu dem kër goo xam ne mu ngi tudd daaru wa pour ñu diisoo foofu ci mbiru yonent bi alayhi salaatu wasalaam ëllëg ba ñu demee ñu tuddee bis boobu bisu bi yërmande <laughs> xam nga ne bis bu ñu ne dañuy rey Seydina Muhammad ñu ne bis boobu bisu bi yërmande la laa <laughs> ilaha illallah nga ne adduna jeex na adduna yàqu na ndeysaan Iblis. laanahullaa yal na ko yàlla sori ma ne ba mu déggee loolu dafa kontaan mu soppali ko nit góor gu màgget góor goo xam ne ku ko gis rek jox ko gëdd jox ko dayo mu taxaw ca bunt ba bi ko gaa ñi ne yow la kan mu ne man góor gu jóge najd laa dama dégg seen pexe bi ma kontaan ci lool comme borom pexe la ak boroom xalaat ma ñëw di leen yokk pexe ñu ne ko exil ku mel na yow lañ doon xaar mu daal di dugg baña ñu lim ñëpp ci kàngami Quraysh nga xam ne giir gu nekk min bani Abdu Sams ñooñu Utba ibnu Rabia moo leen fa teewal ak Shayba Abu Sufyaan ibnu Harb min bani Nuufal ibnu Abdul Manaaf kooku Tuay Matu moo fa teewal ibnu Adi Xubayr ibnu Mut'im Haris ibnu Amir ibnu Nuufal ñii ñëpp ay kàngam lañ yoo xam ne xeet bu nekk rek kër gu nekk rek am na ponkal mu fa génn rek pour fekke pour ñëw dañoo war a fekkee nu ñuy reyee sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam seen seen bis bee ko bon seen bis bee ko yées seen bis bi bu doon bis gu mu ñëw bus bi ñu war a aayal gaafal ci àdduna bis bi ci la bokk mooy bis bu waa Quraysh ne dañuy faagaagal sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba kàngam yëpp dëppoo ñu ne léegi nag moom màgget moomu nga xam ne mooy iblis te xamuñu ko mu ne leen lu ngeen xalaat kenn ca mbooloo ma ne ñun dañoo dañoo bëgg rek defar benn kër goo xam ne benn néeg boo xam ne néegu weñ la ñu tëj ko ci rek ba mu dee waaw benn néegu weñ boo xam ne kenn du ko mën a ubbi ñu tëj ko fa rek ba mu faatu ñun daal dëgg dëgg dëgg suñu pexe daal lool la. la ilaha illallah nga xam ne as kaasu ndox as daggitu mburu as ndànkus ceeb man lañ koy jox nga xam ne xiif dana ko fa rey amul kenn koo xam ne dana ñëw mun a ñëw dajji kër googu di këru weñ wala néeg boobu wala kaso boobu nga xam ne foofu lay faatu nit ñi daal di noppalu mbokk yi ci yàlla ba waa ji waxee loolu iblis góor gu màgget googu dafa yuuxu ne yow de amoo pexe yow de amoo xalaat xanaa xamoo boo ko tëjee ay mbokkam ñëw dal seen kaw daal di koy ubbi fal force ngeen xare ñoom ngeen reyante ak ñoom xanaa xamoo pexe boobu du pexe su ngeen defee noonu ñoom dana ñëw dal seen kaw ubbi bunt yi daal di koy génne ngeen am defet mooy lan tëj ngeen seen mbokk ay mbokkam ñëw nañ reyanteeg yéen daal di koy génne keneen daal ne man de li ma gis mooy ñu exilé ko nañ ko génne dëkk bi mu yuuxuwaat moom góor gu màgget googu mu ne ko loolu du xalaat kii làmmiñam mu neex bi moo ngi màkk di waaraate nit ñi di ko wuyu si mu leen di tuubloo di tas seen mbooloo yi xanaa bu ngeen ko génnee nag mooy mu alag leen làmmiñam bi nga xam ne fu mu dem su waxee ñu déggal ko kon day dajale mbooloo mu baree baree baree bari ñëw dal seen kaw daal leen di faat loolu du xalaat beneen waaye daan ne man de li ma xalaat mooy ñu rey ko mu ne ko nuñ koy reyee mu ne ñu tànn ci ndawi mag min kulli qabila fatan shaaban jalidan nasiban wasitan allahu akbar nañ tànn ci biir mag ay ndaw yoo xam ne ndaw yu dëgër ndaw yu am askan ndaw yu ne kenn yoo xam ne kenn mënalu leen dara ku nekk ñu jox ko ngànnaay ngànnaay lu ñaw loo xam ne bu génnee rek dañ koy dóorandoo benn yoon rek mu daal di faatu su ko defee ñu ne ñëpp a ko rey deretam daal di tasaaroo ci bi màkk mbokk mi duñu xam kan la dañ naan ñëpp la rek su boobaa ñu jox leen alal affaire bi daal di jeex moom Iblis góor gu màgget googu mu yuuxu ne xalaat bi de rafetlu naa ko ànd naa ci ñu daal di nag kañ la ñu ne guddi sàngam lañ koy rey sunu borom subhaanahu wa taala daa di xamal sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bis boobu ne bul fanaan màkk ndax kat gars yi dañ laa bëgg a rey réunion nañ ko ba pare kon maa ngi lay yëgal ne bul fanaan màkk sallallahu alayhi wa sallam ci naaj bu tàng bi da daan dem kër abu bakar ci ngoon waaye keroog digg njolloor la fa dem bi ko bakar séenee daan ne ko ah mbir mi day am na lu xew ndax waxtu wi daawoo ñëw ci kër ga yonent bi ne ko génneel ku bokkul ci sa njaboot mu ne ko ñi fi nekk ñëpp maa leen jur loolu lu muy tekki mooy fenkat amu fi génneel ku fi bokkut loolu lu muy tekki mooy kuy nettali ji su fi nekkee mu ne ko ñi fi nekk maa leen jur kon li ñi fi nekk ñëpp ñu am bàmmeelu biir lañ kenn du xam dara di ko nettali mu ne ko yàlla xamal na ma ne tey bu ma fanaan màkk Aboubacar ne ko as-suhbatu ya rasulallah assohbatu ya rasulallah assohbatu ya rasulallah damay ànd ak yow duma des màkka mukk mukk mukk mukk ci àdduna wallahi da ngay jiitu sa gëléem jiitu sama gëléem topp ko tànk bu sa gëléem sulli sama gëléem suul ko man duma des fii lii mooy àndandoo li mooy ak mbokk li mooy gëm lii mooy lislaam lii mooy taxaw liggéeyu yàlla bi tabaraka wa taala dem na préparé ji ñaari waruwaay préparé doomam yi Asma Abdallah ñoom ñëpp préparé na leen wax na leen buñ génnee fan la ñuy nëbbatu pour ñu leen fay indi lekk ak naan imagine leen Makka septième siècle ci jamono yooyu ay xale yu ndaw ñooy préparé yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak Aboubacar Siddiq seen bàyyi lu ñu lekk lu ñu naan bu guddee abu Aboubacar bu guddee Asma togg daldi boot ñaari mbuus ya moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam tuddee ko zaatu nitaqayni borom ñaari mbuus yi bu indee ñu lekk su fajaree Abdallah daal di dàq xar yi ba ci wetu xunt mi abu Aboubacar daal di génn rat ñu daal di am meew mu ñu naan mu daal di delloo jur yi ca kër ga. nii la fa yonent bi alayhi salaatu wasalaam nekkee ba mu am ñetti fan waa Màkka ñëw nañ balaa muy départ waa Màkka ñëw nañ encercler kër gi fekk guddi la. yonent bi alayhi salaatu yàlla nee na ko tey doo fi fanaan mu daal di yeewu incha mbokk yi bu suba ak jàmm allah ñu eggali kissa yonent bi alayhi salaatu fa mu jaar ba mucc yéeféer yi di leen ziyaara di leen balo ak di leen ñaanal yàlla tawfiq fi dunya wal axira jazakumullahu xayran